kon gis nga nee na kon gis nga bi yonent bi waxee ñeenti métier yooyu bi yonent bi waxee ñeenti métier yooyu wax wàllu douanier wax wàllu douanier lu tax mu wax ko lu tax mu wax ko wàllu juge wàllu juge ñu ni juge ñu ni juge ba ca ëpp solo ba ca ëpp solo ba gën ba ca gën ba ca gën a gaaw a dugg aljana ba gën a gaaw a dugg aljana dëgg mooy bii atte dëgg alaysa allahu bi ahkamil hakim alaysa allahu bi ahkamil hakim yàlla nee na ndax man yàlla yàlla nee na ndax man yàlla du man maay le meilleur des juges du man maay le kon juge buy àtte dëgg kon juge buy àtte dëgg sa àjjana taxaw sa àjjana taxaw waaye boo dul àtte dëgg rek waaye boo dul àtte dëgg rek ka nga àtte woon tooñ ka nga àtte woon tooñ fii kay àdduna da ngay gis kuy def appel nee na kay fii da ngay gis kuy def appel waaye jarul def appel nee na wante jarul def appel sax yow mal xiyaam yow mal xiyaam yàlla da lay woo yàlla dalay woo nga woo nga ñëw nga ñëw juge bi ñëw juge bi ñëw ka nga tooñoon ñëw ka nga tooñoon ñëw mu ni la àttewaatal mu ni la àttewaatal toog di la xool nga bëgg jubal nga bëgg jubal mu ni malaaka yi génn leen ni mu àttee woon mu ni malaaka yi génn leen ni mu bi mu ni gàddu leen yóbbu sax mu ni gàddu leen yóbbu sax kon gis nga danger bi ci nekk nee na kon gis nga danger bi ci nekk danger bu mag la nee na danger bu mag la te yooyu te nee na yooyu am na ca manuelu xadaratul ilahiya ba am na ca manuelu xadaratul ilahiya ba ñu nga ca bind benn waliyu ñu nga ca bind benn waliyu dañu ko créer problème dañu ko créer problème ci wàllu xaalis ci wàllu xaalis ñu dem tribunal ñu dem tribunal ñële fay juge ba ñële fay juge ba mu àtte mu àtte ni dañ koy condamné ni dañ koy condamné daanu ko tëj cinq mois daanu ko tëj cinq mois dana fay nangami xaalis dana fay nangami xaalis wax ba pare wax wax ba pare te xamul ni ka mu doon àtte te xamul ni ka mu doon àtte la waliyu la day teew xadara day teew xadara ba kooku déglu ko ba mu pare kooku déglu ko ba mu pare ñu ni ko léegi lan nga ciy teg ñu ni ko léegi lan nga ciy teg mu ni li ma ciy teg mu ni li ma ciy teg mooy atte bii d'accord ma ci mooy atte bii d'accord ma ci léegi damay def appel léegi damay def appel ñu ni ko waaw booy def appel ñu ni ko waaw booy def appel da ngay gis sa avocat da ngay gis sa avocat moo ko mën a bind moo ko mën a bind ci délai nangami fan ci délai nangami fan sinon tribunal bi du ko recevoir sinon tribunal bi du ko recevoir mu ni déedéet mu ni déedéet du ma gis avocat de du ma gis avocat de appel bi gën a gaaw appel bi gën a gaaw moom laay moom laay def ñu ni ko luy appel bi ñu ni ko luy appel bi mu ni mooy man mu ni mooy man kii nga xam ni moo ma sosal kii nga xam ni moom ma sosal kii ni moo ko seede kii ni moo ko seede ak avocat bi kay layal ak avocat bi kay layal ak yow mi nu atte ak yow mi nu atte dem barsax bu subaa ñu dem barsax yàlla atte ko <laughs> gaa yi ni kii xelam neexul jàpp leen ko tëj gaa yi ni kii xelam neexul jàpp leen ko tëj dañu ko tëj dañu ko tëj balaa gee balaa gee mu génn at wax waxam ñuy wax waxam dégg avocat wax waxam dugaloon deel dégg ko dugaloon deel ñuy wax ñu ci waaru ñu ñu ni pourtant waxoon suba ñu àtte leen ñu ni pourtant waxoon na suba ñu àtte leen gis nga histoire ba nee na gis nga histoire ba yéeme yéema bind ko ca manuel ba ñu bind ko ca manuel wax na dëgg wax na dëgg bëggul àtte bi bëggul appel lay def appel lay def neexu il faut il faut ñaata la nga war a koy juger rek gis nga moo tax koy juger rek xam nga kooku bu xamoon bu ko juger xam nga ni kooku boo xamoon buñ ko tey jii nii tey jii nii bu subaa appel bi am bu subaa appel bi am mu yàlla te kanamu yàlla du ko juger kon du ko juger moo tax def attention am solo moo tax nee na def attention am solo procureur ba procureur ba lenn kese lenn kese la ko l'islam di mettre en garde la ko l'islam di mettre en garde mooy moo jël décision mooy moo jël décision ku ko neex tëj ku ko neex tëj ku ko neex bàyyi ku ko neex bàyyi ñu ni décision ba ngay jël ñu ni décision ba ngay jël na nga fexe ba nga conforme na nga fexe ba nga conforme ak dëgg ba ak dëgg ba su conforme ak dëgg ba su conforme ak dëgg ba sa aljana taxaw sa aljana taxaw su jaarul dëgg ba su jaarul dëgg ba yaa ngi ci danger yaa ngi ci danger kon boo dajalee yooyu yëpp nee na kon boo dajalee yooyu yëpp métier la yoo xam ni soo jubalee métier la yoo xam ni soo jubalee texe texe soo dëngalee soo dëngalee am ci problème am ci problème moo tax yonent bi ni woon nee na moo tax yonent bi ni woon yu jar di moytu la yooyu yu jar di moytu